décret maanaam xaatim bi ñeel wàññeeku ci njëgu luwaas bi njiitu réew mi Macky Sall signé na ko gannaaw loi bu 2014 mu mel ni bi yoon kilifay nguur gi dañu see taxaw temm journal officiel bi si siwal na ko ci fàttali ndogal yi nga xam ne jël nañ ko moo di ne locataire yi nga xam ne ci 500000 wala lu ko ëpp la ñu doon fay léegi ñaar fukk boo jël dinañ ci dindi 5 pour cent 10 pour cent pour loyer yi toll ci 300000 ak lu teg jàpp 500000 ak ñi nga xam ne ñoo doon fay lu néew trois cent mille ñoom quinze pour cent lañ siy teggi maanaam ku doon fay cent mille franc dinañu si tekk ñetti dërëm mu dikkee la quatre vingt cinq mille wu ne wàññi wi nag door na depuis àllarba gi weesu ab commission buy saytu doxalin wi sax taxawal nañu ko ba kii di njiital Ascosen Momar Ndaw lañu tabb mu jiite ko kàddoom yu njëkk yi ñu taataan si journal L'Observateur ma nga say artu bailleur yi di borom kër yi loué di leen wax ne ñu tënku ci li ñu xaatim ci décret 2023 382 bu 24 février 2023 bi ndax lu ko mooy tëdd kaso teg ci tam fay koppar gu takku mën na la see fekk njëg yeeg numéro yi nga xam ne jagleen nañ ko ñi nekk ci location ba jafe-jafe bu ñu am ñu mun ko xamle ñii di commission ba itam xamle nañ ko 800 877 77 benn la ci numéro bu mu jokkoo yi wàññi tem luwaas yi di 15 pour cent 10 pour cent jàpp 5 pour cent dëkkuwaay yi képp la ñeel te ñi nga xam ne jotoon nañu wàññi seen loi ci atum 2014 ñoom bokkuñu ci wàññi tey njëg yi gannaaw loi 2014 bi andiwul saafara ci jafe-jafe luwaas bu seer bi ñu bari ci askan wi jànkoonteel bi yoon njiitu réew mi Macky Sall jël ab décret la def askan wi dundee yaakaar ne bi yoon yëf yi dina saafarawu